d'expression doon luy jëmal démocratie tey ñu amaloon ay waxtaan yu yaatoo yaatu ak ñëpp ñu yëngu ci wàllum tasum xibaar bokk na ci lu ñu doon waxtaanee du lépp lu jëm ci wàllum lanceur d'alerte yi. suñ nee lanceur d'alerte ñun tam dañ ciy gisuñu bopp parce que ñun liggéey bu ñuy def bés bu yàlla sàkk liggéeyu lanceur d'alerte la. mooy quotidien yoo leen bés tey soo leen xoolee am na ay quotidien yi génn di ngeen ci gis ay révélation révélation boobu du ma ma dem ba moo ko def maanaam du un sénégalais lambda ko ko def ay taskatu xibaar lañ donc lanceur d'alerte yu njëkk mooy ñun donc ñun itam loi boobu daf ñoo amal njariñ moo taxit boobu itam lu ñu ci bëgg mooy ñu impliqué ñu si biir ba ñun itam lépp loo xam ne jàpp nañ ne lu baax la su ñun ñu proposé ko nga xam ne su génnee ñun itam dinañ ci gis suñu bopp parce que bëgg-bëgg bi yëpp mooy ñu am presse de qualité fexe ba lépp lu ñu soxla ci xibaar ñu daal di ko am maanaam accès à l'information loole nag bokk ci li nga xamante ni nii yàgg nañ koo xeex fii ci Sénégal teg si Sénégal doon réew bi nga xamante ni nii dañ koy daal di cité ci lépp lu jëm ci wàllum démocratie looloo waral ba ñoom ñi lay jàpp ni dañoo war a rek am benn loi bi yombal accès ci information yi la. loi sur l'accès à l'information xam ngeen ni Sénégal ay at a ngi ñuy liggéey si boobu le loi. mais loi boobu boobu ba tey nag mi ngi nelaw si biir tiroir yi maanaam dañ koy tudd rek te demul assemblée nationale te soo leen yëree réew yi nga xam ni moom la ñu wër yëpp am nañ loi boobu noonu. ñu faral di leen dóor di leen buntu xatal saa su manifestation amee ci réew mi reporter yi nag di jànkonteel ay jafe-jafe yu metti seeg seen digganteeg takk der yi tax na. ba président convention des jeunes reporters di xam le ni bëgg nañ gisanteeg njiiti réew mi ba li ni mel ñu daal di koy waxtaanee. même à l'école dañuy wax ñu soo leen demee sur le terrain xeex am ñun suñu position mooy si ginnaaw FDS yi maanaam ñoom ñoo ñu war a aar loolu aussi reporter nañ koy bàyyi xel que ñun suñu place su manifestation amee fu mu war a doon ñu fay taxaw parce que loolu aussi dina tax ba nga xam ni dina wàññi mbir yi.